ak maire Ñaaxeen Moustapha Silla and ak meeru Koul Modou Fall and ak euh, représentant meeru Mérina Dakar et and donc ak euh, dignitaires yi ak chef religieux ak euh, président ASC yi nek ci bir Kadior yëpp Kadior gi nak moy li wax la corne du Kayor, mom la wax Kajoor des profondeurs ñu nek fi tay di wax ni danoo dajaloo dox til makha pour attention nit ñi ci bi nga xam ni mooy bi jógee ba nekk la parce que ñi fay des bari accident yi bari chantier bi yàgg na liggéey bi yéex na te ñi amatuñu benn gouvernement son excellence le président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye le premier ministre Ousmane Sonko et toutes les autorités particulièrement le ministre des infrastructures pour que ñu xooleel seen bopp mais nag taxawu askan wi ci télé bi pour que ñu liggéey ko lu mu gën a gaawee baa ñu defar ko nu mu gën a gaawee ba suñu jigéen ñi nga xam ni euh, poste de santé yi ñuy jógee yëpp sans euh, poste de santé bi ñuy ñëw euh, hôpital bi mooy Ngaye Mékhé te xam nga ni ku bëgg a wasin jaar ci télé bi bala ngaa egg si di nga ñàkk sa bakkan baa sa doom ñàkk sa bakkan comme bi nga xam ne aussi mooy jóge fii ci réew mi di jaar biir Kayoor di dem dëkk bi nga xam ne mooy deuxième capitale économique gu Sénégal di Touba comme googu dem na parce que koom gi gisatuñu ko xale yi xamatuñu fu ñu jëm ah moo tax ñoom ñëpp kenn desatu fi fi mu ne koo ni demal seet sa mbokk mënatu koo seeti kon mbëkk mi itam lii tali bu bon bi yokk na ci mbëkk mi léegi nag li nu bëgg mooy budget bi di ñëw gouvernement bi bàyyi ci xel et dugal tali bi ci budget bi pour que ñu mën koo defar lu mu gën a gaawee waaye nag fii ñu toog it day guy goo xam ni dafa am ñaari bànqaas tëli cilmaxa bi am na waaye tëli baaba garage bi am na tëli garage bi loolu euh, saytu yi nga xam ni marché yi joxe woon nañ ko moo tax mu xaw a yeex waaye li wax ku jël nguur war ngaa saytu lanu fa joxe woon bala ngaa jël lan la waaye li ñuy wax mooy saytu boobu bu yeexee lu mu gën a yeex rek askan wi gën a suux kon na saytu boobu gaaw ñu relancer marché yi ni ñi defal tëli yi ñu daal di nekk ci jàmm wasalaam. Fall membre du collectif ah di nuyu maire yi nga xamante ni tey ñoo nekk fii ci suñu gannaaw. muy le maire de la commune de Mekhe, le maire de la commune de Niakhène, le maire de la commune de Thilmakha et le maire de la commune de Koul. Nous sommes les membres collectifs. Nous sommes aussi le premier adjoint, la première adjointe au maire de Mekhe, Mme diop Djali. la population Kadior est ñoo La population Kadior dañoo sonn ci tali bi nga xamante ni moo ngaay dem Thilmakha dem ba Touba La euh, population bi fi dëkk ñu ngi souffrir ñun suñu njaboot yi wératuñu ndax tali bi ndax tey ñun mënatuñu am sax environnement bu baax ndax garab yi tey yëpp a xonq te ni mu def garab yi noonu la def suñu xol yi noonu la def suñu xolu njaboot yi jigéen ñi avortement yi bëri na accident yi bëri na moor yi bëri na ci tali bi kon Kajoor dañoo sonn le Kajoor des profondeurs ñoo yuuxu di wax wàllu son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu jàpp ñu ci tali bi nga xamante ni moo jóge ngaay dem Thilmakha dem ba Touba Mbacké muy tali boo xamante ne tali bu am importance la muy tali boo xamante ne tey ku daan màggali Touba ci tali bi rek nga xalaat di fi jaar di dem Touba mais population bi trois ans yi ñi ngi dund loo xamante ni métti na métti boo xamante ni fu ko waay takk rek passé na ko ñuy lancer appel le ministre des infrastructures El Malick Ndiaye ñi ngi koy woo ci tali bi nga xamante ni moo jóge Ngaay dem Thilmakha dem ba Touba Mbacké population Kajoor sonn nañu te kajoor méritoowul li kadior méritoo na leneen luddul dul tali bu mel nii ndax tali bi dafa am importance ci Sénégal kon ñi ngi ñaan ñëpp képp koo xamante ni mën nañu see jàppale te nag du kenn ku dul gouvernement ndax su fekkoon te woon ñu lu population kadior di defar la ak ñu mën ko kon dinañ génn ci suñuy poche defaral ko suñu bopp mais état moo ko mën a defar te état continuité la état bi fi jógee ñun jooytu nañ ko ba son ñaxtu nañ ci ànd ko ak les maires di ko jooy pour ñu defar ñu tali bi mais dara et beneen euh, régime ñëw na régime bi nga xamante ne tey moo fi nekk ñoom la ñuy tàllal suñuy loxo ñun doomu kajoor yi di ko di leen wax ni leen suñu tali bii yitteel nañu te benn soxla rek la la kajoor am mooy tali bi képp ku ñu defaral tali bi rek loolu la ñuy ut di ko sàkku di ko ñaan ñu dimbale nu ci tali bi su dee sol bu dee coono rek fu coono di yem rek suñu coono ñun waa kajoor yam na fa kon ñi ngi lancé appel le président de la république son excellence Bassir Diomaye Diakhar Faye Kadior ñi ngi lay talal loxo kadior ñi ngi lay ñaan ñu dimbali ñu ci suñu talibi, ñu defaral ñu ko ba magalu déwén le képp kuy dem Touba vous a talibu ñun. merci jërëgen jëf. le chargé de la communication du mouvement pour la relance des travaux de la route Mekhe Thilmakha Touba La cause de cette caravane que vous avez vue Auparavant, permettez-nous d'abord de remercier toutes les autorités qui ont contribué à la réussite de la caravane, notamment les sous-préfets de Merinandakar et de Nyachin, qui nous ont facilité la tâche, les commandants des brigades de Meché et de Pékès qui nous ont escortés et ont assuré notre sécurité. Remercier tous les maires qui, de par leur poche, de par leur budget, ont contribué à la réussite de cette caravane, mais également toute la population du Cayor qui a répondu massivement à notre appel. Aujourd'hui, si cette caravane a été faite, c'est parce qu'il y a une dégradation très avancée de la route mekhe kilmacha Cette route qui nous a causé plus d'une vingtaine de morts par le truchement d'accident. Alors, on se rappelle de l'accident de 2009-2010 de Ndouki, qui a fait 16 morts, dont deux enfants. Celui de Kilmaha, avec ses trois morts, ainsi de suite. Beaucoup de femmes ont avorté en allant dans nos centres de santé. L'environnement est dégradé. Aujourd'hui, quand vous, avez, vous passez sur la route, vous voyez des tas de débris, des tas de gravats qui peuvent également causer des accidents. Ce sont des bombes à retardement. Dans l'immédiat, nous demandons au gouvernement, à Monsieur le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye à son Premier ministre Ousmane Sonko, mais également au ministre des Infrastructures, El Ndiaye, de dégager plus rapidement ces tas de débris, de gravats pour qu'on puisse aller faire le pèlerinage à Touba dans d'excellentes conditions. Maintenant, après le Magal, nous exigeons et nous demandons au gouvernement la relance des, travaux dans la route Meche-Kilmaha qui doit être bitumée car l'impact économique que cette route peut donner au Sénégal est incommesurable. Donc le gouvernement doit euh, dresser un baromètre pour tout simplement savoir cet impact économique qui devra participer à augmenter le budget du Sénégal. C'est pourquoi nous demandons à ce que euh, les travaux soient relancés le plus rapidement possible. Et nous remercions toute la population, la presse qui nous a accompagnés aujourd'hui. Si on est là, c'est grâce à vous. Merci à toute la presse. Donc merci également aux chauffeurs, empruntés et aux usagers de la route. Merci à vous tous.